سورة الدخان إن شاء الله فقط وقيل إنها إنها كاشفة عذاب الله مكية طيبة وقيل إنها إنها كاشفة عذاب الله وهي لا moom Madina la wàcce di def ci saaru yëpp Makka la wàcce waaye moom saaru Duxaan ci tun juróom benn la aw safan ca juróom ñaar aw safan ca juróom ñaar te waxal suma juróom fukki aar ci kaate bismillah sama wax sama ci tun tun tun wax na nga daal ko ni daal ma jaar ya ay ni daal ko ni daal ma wax ko ni ni la la alam ma xam ni ba di ci na mun ci jahi wa kitabu jinna ma alquran am diinu yore am digal dëgg jëm naa ci alquran bi nga xam ne dafay digal xalaal ci xaraam innaa naka lu am far naa wàcc nañ ko fi nga lekk ci guddi mu barakatin guddi guñ barkeel de jëm naa alquran bi la wàcc nañ ko ci guddi guñ barkeel de mooy guddi laylatul qadr de loolu gën a wét am na firi kañu waa weer ne semaine saabaan waaye loolu weeru de te alquran rek dina ko de innaa naka lu ko naa naka lu mun ci leen ko waade yaa ci guddi googu mu fàq la dem safale lu am dañ ci nëpp mbir ak ñu doon karame rek ci guddi googu lépp lépp mbir mu ngi karame ci la ko yàlla dogale am ran mu mbir mu doon safale mu ne naa tukko ñu ñu naa na sanu ku naa na sanu ñëpp ñu ñu ñu ñu ñu ñu sallallahu alayhi wa sallam jëm na ci téere bi wane na ma daa téere bi nag ci kanam yu bari buñ ciy jëm loolu ca tamit téere bi lu màgg la war ci taal mu bind mu melal kay xam ne téere bi biral halal ak haram la loolu war na xay may téere bi lu màgg la dana màgg ci barabam dana màgg ci jamonoom mu ne ñu ko wàccee ci guddi laylatul qadr ci nga xam ne moo gën a màgg ci guddi yi xayru min alfi saarin ci wàllu weer ci weeru koor ci nga xam ne mooy Sër Ramadan dañu doon seetlu Qur'an ci weer wi gën ci guddi gi gën ci ko wàcc yi doon du yàlla ci boppam mu melal tey météo wi biral dëgg la loolu yëpp wane na mag ay séeréer séeréer yi yàlla wàcc yëpp ci weeru koor la wàcce wàcce na tawra yëpp wàcce na téere Ibrahima yi ci def bi jëkk ci weeru koor Tawreet ci juróom benn fan ci weeru koor Injiil ci fukki fan ak ñaar ci weeru koor Saboor fukki fan ak ñaar ci weeru koor Linjiil ci fukki fan ak juróom ñett ci weeru koor de Alxuraan ci ñaar fukk ak ñeent moom it ci weeru koor de benn waaye ne Ibnu Abbaas lu tax yàlla di wax ne innaa anzalnaahu fii laylatil qadri saa Qur'an ci weer yëpp lañ ko wàccee ci biiram ñaar fukki at ak ñett mu ne ko suma deewoon te laaj la loolu ba ma tontu la ko yow da nga xalaat ko ndax da nga da nga fendoo Alquran Alquran lépp wàcce nañ ko mu jóge ci lay maafoos dañoo ci asamaan te jóge ci loolu ci weeru koor la ci guddi laylatul qadar guddi ñett ak ñenant gannaaw gannaaw lañ koy wàcce lëf gannaaw def ca mbaa yu bindee fi waaw ci weeru nekk ak jamono ji nekk ba mu wàcc ci biiram ñaar fukki at ak ñett fukki at ak ñett ci Makka ak fukki at ci Madina loolu biiram wàcc ak Alxuraan wàcc na ñaari yoon wàcc jëri ci lañu maa foos moo moo jagoo guddi laylatul qadar ci weeru koor gannaaw ga nag ci bay seen si fii ci asamaan si jëkk bi pare ko Yàlla denc Jibril di ko wàcce lëf gannaaw lëf ba mu wàcc ci ñaar fukki at yooyu ak ñett moo tax guddi gi yàlla wax na ci la wàcc alxuraan tudde ko laylatul barakatum du dara mooy guddi laylatul qadar te laay yaa ko wax moo ne innaa anzalnaahu fii laylatul qadri te laylatul qadri itam ci weeru koor rek la jagoo ndax alxuraan moo wax ne alxuraan ci weeru koor la wàcc شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى تعمل ليلة القدر من جلس قيد النص بعد الرجاء waaye at mu ne jenn guddi la jee te ci weeru koor lay doon yonent ne sàkku leen ko ci fukk yu mujj yi ci weeru koor boo xam ne am na ñetti fan ak benn nga xam ne juróom-ñeenti fan def ak bu ñu amee nit ak ñett nga xam ne juróom ñaari fan a ak bu ñu amee waa nit yi fan ak juróom xam ne juróom a def yu fraco def na fa fa nekk lu am lépp mbir ak mu demoon karañee lépp mbir mu yàlla wàcce ci asma ci ay wërsëg ay ay digg jeex ba baax may jeex lépp lan ko fa fa jóg diggoore am ram mbir mu yee mbir mais naan dinaa ko jëfandikoo moom dinaa la ko moom pour naan la ko moom murti nañ di wër yooyu de yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ña ko jëkkoon ci yonent de rahmatan bi mu wër maa dem raxu ko ci borom borom sa inna wa naka moom moom sax ñoo aji dëgg la mu seere wax alaa di moom di aji xam de yàlla yónni yonent yàlla Muhammad moo yónni yonent yàlla ko jëkkoon ci mbaa xamal yërmande teraanga la ci doomi aadama yi yàlla yónni ci ñoom ay yonent teewal la ci ñoom yërmande la ci ñoom teewal googu sant ko war na sant ko mooy lan gëm yonent yi topp seen diine yi rek wedd teewal googu moo di lan mooy wedd yonent yi bañ a topp seen digal de rabbu samaawaati yàlla mooy borom asamaan juróom yaar wala bee suuf juróom yaar wa maa baynahumaa nekk diggante seen in kuntum dem nekk ngeen wokk na di woy xoolu ne moom moom asamaan ak suuf kon xool laa ilaa démbul mooy jaamu ci dëgg ilaa wallahi moom yox yi dana mu dundal ku mu na ma dundal wayu nit dana mu ray ku mu na ma ray rabbukum mooy borom seen wa rabbu abaaykum tey borom ay baay seen la way ne di way jëkk de bar day ñoom ñoom ci fekk ni way nekk nañ ci ci ci dekki yàlla ko ni moom la ñu ko am de ñoom daal ci kërëñ dekki ñu lay xoy yonent bi yàlla gënal ci naa dañ dañ xoy yonent bi nag yonent bi dem ne allahumma inni alayhim bi sabam ka sabe yonent yàlla yàlla na ma dimbale ci ñun Makka ba wàcce ci ñoom juróom-ñaari at yu d'accord yu mel ni juróom-ñaari at yu d'accord yàlla moom ci jamono Yuusuf la sama mbokk rek yàlla daldi te taw bi nag ñoom juróom-ñaari at taw ñu ñu xiif ak xiif ak xiif ba nga xam ne lekk nañ ba lekk seen xaj ya buur ne fa sax ñu ne di kul yow ma taati kës ba gën a dikke sama aasa maanaam di du xaalis di saxat mu binum bi daa di judde yonent mu ñor rek maa ngi leen di indi suñ boo xam ne ñoom ñëpp ci ci xool dafay defe na la faxa faxamna ci kanamam de suñ bi nekk loolu ngay def ñu suñ ba nga xam ne day ku taxawal sa borom rek ne nga faxata ñu dox boo jëndee yow yax faa dana mu wóor naa sa nit ñi ñu ne xaa saa yee asaabu ñu doon la ali ñu daa ñu ñëpp de ñu daal di tawat na suñ ba darañ war a wan nag dem fekk yonent naa ko yëpp ngeen yonent yéen maa ngi ray nga bàyyi ci baax bi ci balal ci ray nga doon ci tur yàlla ñu war a ray naam wa kasarnaama min gurrin rabbana inna rabbana ya borom sama istighfar ñun xanaa wa ibnu ala salam bu leen ina wa tan ñun ñu lay gëm ñu ko di ñu ci dina dal na gëm gëm sey ñu duggu rek bu na ana raw ma tay na tay ñaaram ci tra ak gëm wa qad ja'ahum bi kulli rasulun abiyun bi ñu bi ajibi ñu gis ñu ne dëgg daal ñu yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su ma tawaloo parce que ñu dëgg daal wërëb ko waxtaan bi koy wax mu war la mu kuñ xamal la mu ci dëgg doomu aadama may ñu ñu kuñ ci ñëw la mu ku daal ñu yonent Yàlla Muhammad yàlla yónni ko ñu gën maa ngi ci yonent yëpp ñu xamal leen boobu yonent am lu ñu wax lu may naa lu xam-xam lu ñuy wax doomu aadama ak koo xamal ak dina ko jafe ñu naan tamit kàddu ba asaay wëy ñu lañu kuñ ci waaw indi nga xam ne moom la ñu jàmbat danaa ko junj xarit leen lu néew waaye nekkul naka yéen ah yéen dana way dana ngeen ci kéema de dana indi ngeen ci taw danaa ko yëkkati waaye da ngeen delloo ci ci daw rek di weddi yàlla rek ah bañ delloo nag yàlla daal di indi leneen leneen di de pour parce que yow mooy napp toujours bés ba gën a ñu ci ak bàtt ba ci de ak subaxaa gën a yu mag de parce que ñun ba nga xam ne yàlla ci boppam. ci loolu moo koy waxee ci loolu seen bi ma gërëm ñu ngi leen di gërëm ñu ngi tax ñu war a gërëm ñu ci ñoom de mooy ban bés mooy bés ak bagar rek ñu ngi leen di bagar. motul saa saa ñu waay ci ñoom juróom-ñaar fukk Abu Jahl ñu daan ci doon boobu Utba taw Sayyid Walid ñoom ñoo jëkk ñu jaar ak Ubay ibn Xalaf Ubay ibn Ubay Ubay moom ut la wéyoon ba pare juróom ñaar fukki ci ñoo xam ne ku ci nekk war naa doon buuru Makka keroog keroog balaa nañ la rey rek jàpp ci ñoom juróom ñaar fukki la yoo xam ne ku ci nekk yonent bi gënu ca kenn lu ma yonent bi yële ko gënee Abbaas ibn Abdul Muttalib baayam ci la bokkoon de keroog Yàlla leen teer boppam ak loxoom ci bu mag dara ma ne wa ma ramayta ramayta walaakinna Allaaha ramaa keroog keroog balaa juróomi junni ci malaaka yi ñoo wax te dara yoon yi ko saaru yaasin yàlla mu ngi daw xalak aw xeet dawal ca malaaka jaru ko jigéen xaw ko rek ñooñu fa toll moo tax wàcc ak malaaka yi ci xare xare Badar man kay yonent bi rek lay wane waaye xalak nañ màkk ñëpp sax jarul malaaka di wàcc mel na sax kaay juróomi junni malaaka waaye keroog projet bi gis nañ njóobu de wala xarxatu ma ma toog na mu xam ne moom tamit dañu xaw ma salaam nañu ci salaam na wajaa aw te dikkal leen rasul suñu yoon itam mooy Musa kër yi daal di tàggat fa yàlla ne leen ni ne leen am na tam bi leen di addoo jox leen ilay jëm ci man li ma leen di laaj te mooy jëm yàlla wala addoo jox leen ilay jëm ci man nga baal laaj jaam yàlla yi te ñooy daal ñu ñaaw ñu ne ka man rasul suñu yoon daal ak suñu yoon ñu ngi guddi guddi ku dee guddi waale rek nit ñi weddee noonu seen yonent bi yàlla yooyu ñëwoon itam yonent yàlla Musaa de mu dem te Firawna tukki di leen waat ne leen yàlla ma yónni de waaw am na tam bu leen di laataaroo bu leen rëy alors là il faut yàlla de bu leen rëy ci kaw yàlla ku leen dund topp leen ko te mooy nangu maa topp bu ñu yéen a sa man ah ci ku wàññi dikkal dama leen ci sultaan yi ko laay mu ngi mu ngi dig di wala aji dig danaa leen indi lay dig ci la yàlla may yónni ah te xam nga ne Zawal ak kii Moussa ne bàyyi ma ma rey Moussa rek képp ku ne dana ko rey dana ko jënd doon jëm dee Moussa ne wa inni naka ma wax ci musulman bi la ci borom sama wala ci sama borom sa an tar bi moo ni bu ngeen jàmm ne jàmm may doj ba ma dee li ngeen ne dañu may jàmm ay doj ba ma dee mu ci sama mucc yàlla laa ko ñaan de way lan tooni noonu dem dëggal leen leen ci man waxta si leen ñu beru leen ma waaye su fekkee gëmu leen ma bàyyi leen ma ak sama jàmm bu leen ma jéem a lor waaye gëmu leen ma ba ma fii loolu de yenn da ngeen ma rey damay gënam tam yàlla ba daana sam ñaan rabba ba boromam moom mu woo boromam de am naa aw daa yàlla sañu de xaw mu ñu leen mujj mu nañu de bokkaale yàlla de buur daal di tontu ne ko fotore ba ñaanal der bariye ci jaam sama yàlla na ko bu guddee na nga tànn bari Israël yëpp nga am na ñoom rañaan génn Misra léeg-léeg ca guddi innakum na tehel mu tabam na ñu topp ngeen de da ngeen dem na ngeen xam nag ne Firaw na dana leen daf ci de yonent yàlla Muusaa ne bari Israël yi yàlla digal na ma naa rañaan ànd ak yéen jigéen ñi kër gi xam ne bàyyi saa yaa fa dëkk nañ faral di gàtt ci buntu kër ga de day maraaka yi mën a xam ne bàyyi saa yaa yaa ëpp te guddi rek ñu ngi ñëw yore si yàlla Moussa rek di génn bàyyi saa yaa yëpp génn ànd ak moom booba juróom benn téeméeri junne juróom ñaar fukki junne lañ yooyu moo taxaloon Yaqoob baayam ñu bàyyi ko Kanaan ca Saam yow dëkk bi Misra booba juróom-ñaar fukk rek lañ njaboot bi rek juróom-ñaar fukk yooyu loolu diggante bi mën nañ ñeneen di téeméeri at bu Musaa di génnaat ak ñoom Misra nekk nañ juróom benn téeméeri junne ak juróom-ñaar fukki junne ñu daal di génn yow sama ibnu Nuun ak Kaaleb ibnu Yohanna ñoo gënoon a nangu yonent bi Yàlla Musaa ci mu xabaare yow sama moo nekk ja bopp karaw kaalab moo nekk ja gannaaw yow sama mu jiitu ne yonent Yàlla Musaa tës lañ ci jox boo xam ne saxaar rek dafa mën a jàllale kaalab ni féete gannaaw ne ko Firawna jàpp ñoom mbambirim xare moo xam ne dara mënu ko tëkki Musaa ne duñ ñu jot yàlla nga ànd ak man daal di laaj yàlla ndigal yàlla ne ko dóoral sa xeet ci géej gi bu dóor xeetoo ci géej gi rek ndax moo wow jëm asamaan daal di ko fàttal ci cim la dëkk yaa na suufa daldi wow koŋ bani Israayil fukki jiib la ñu ñaar jiib bu nekk aw ñu am nga dambot bañ toogoon ñoom bani Israayil ba tollu ci digg géej ga saraw naa ca xaram de ñu ne kuréel su tuut lañ kat dégg ngeen ñun ñu ma waxoon juróom benn téeméeri junne juróom ñaar fukki junne saraw na ñu tuuti lañ ndax moom yaa am xare boo xam ne xare kànga moom yaa xam ne ku ci ne war war waaye mu mel ni bosam mu ndawar rek junne junne lañ te ku ci ne ay buura la ñu fa gannaaw yoo xam ne ay junne ko topp bañ a tee te géej ga saraw na ñu leen dégg sax li ñu def ragal mu rek a tax mu def ko alal la ma yoon sax moom ndax ndax fii xam ne nar naa mën a yàlla ñu ne yoon mu ne yoon wi rek nit ñi Musaa gaa waleen bi ñoom itam ñu daal di sóobu ca géej ga ba ñu ci yonent yàlla Musaa yi génnee ba set rek kenn desatu ci ñoom façon jëm ñi ci Firawna yëpp ñoom itam dugg nañ ba kenn desut yàlla delloo ak géej gi nam meloon ñoom ñëpp ñu suux rek Musaa nag ba mu jàngee géej gi te ñu ci Firawna yi ñoom itam aw ci yoon ñu bëgg a jàll si dafa ñax de wala ba ci bëgg a xàcc xeetam dóoraat ko géej gi ndax mu dëpp waay moom la ko buur naa ko wàcc rek dañuy albaare géej ga rawan muy aju dal ne ko géej dina wàcc rek man de loolu moom du ci bëgg. dinaw naka ñoom jundum leen lañ mu roxale ñu lawal de wàccal rek ñoom ñëpp dañuy laaj raw na ak ñu dem na yàlla dëpp géej gi ñu leen ko ñu laaj de tam trato bari na lu ñu bëri ñun gannaaw suñu ci rawan ay tool la. wama yoon ak ceeb yu ndaw wa suwaayin ak mbay wa maqaamin ak jataay kër yi di rafet wa naamatin ak teewal kaanu boo nekkoon nañ saa ci moom fàttali na ñooy teewu de ñoom Firawna ñu sam na ñu kañ bari gis la gannaaw ay tool yoo xam ne am sax ay ceeb yu ndaw mooy ñiru Misra ak mbay yoo xam ne ñoo ko denc ay magasin magasin ak seen jataay yoo xam ne daa toog ak teewu dañ daa teewu yëpp bàyyi nañ ko gannaaw dafaay jëndit mu mu tànnal la de waaw naa dem doon nañ ko xaw na aw yu xaaxal nañ ñaan de yàlla nangu na ko ci ñoom ñu ko moomoon jox ko bañ Israël de Firawna daal di aar ko nag moo ko ci yëpp problème ci boo dee sama bakkat jëlee ay ñoom sama sama wala rek suuf te ñooñu kay ci xamal ci benn jël ci ñuy bëri yëpp te asamaan jooyu leen de suuf it jooyu leen wuuteeg ci doon yàlla su gëm yàlla moom su dee asamaan ak suuf dañ ko jooyee asamaan ci ay niroom daa jaar di dem ci asamaan boo xam ne dox nañu laaj ñu ne faatu na rek asamaan dafay jooy jaamoo barax bu mu mës a jaamu yàlla di suuf daf koy jooy su fekkee mas naa aj mata kaaba gi dana ko jooy Safaa ak Marwa ak Arafa jiwe ñoom alak nañ te kenn jooyu leen asamaan jooyu leen suuf jooyu leen wa maa kaanu yakunu munzariin dañuy ñëwee rek wala xam na jënd naa musal nañu bani Israayil bani Israayil ñu ne laa xam ci mbugal ak mu ñu ma di borom doole leen de yàlla musal nañu Muusaa yonent yàlla Muusaa ay musal ya musal na leen te mbugal mu dafa dina la xam ne moo dal moo leen daloon de mooy ray gañ daa ray seen doom yu góor di jaamal seen jigéen de vraiment xeetu dawal wu ne def na leen ko tey nag mucc nañ ci yooyu yëpp ñun Firawna ci Firawna mucc nañ ci Firawna de inna raw naka moom Firawna kaana nekkoon na mu maa li ngeen yaa ngi kowe minal musrifiina ca wa yàq ña suuf de Firawna ngoo loolu la ko yàlla faxaral na ne indi minal muslimina daa waa bu dul dëgg amul solo de loolu la wax waaye yàlla moom lii la wax ci moom de ke gën a yàq suuf moom la doon de wala qad ikhtarnaahum tànn nan leen ñoom bani israel alaa yéen ñu naan xam-xam de allah la ñu ci liggéey bi jamono seen yàlla tànn na bani israel te ci kaw xam-xam xam na yàlla nañ ko bëgg na leen ci seen liggéey bi jamono de xeetu yoonu si tàddu ci rek ci teg la kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi war nag liggéey bi gën ñooy ñan mooy seen liggéey bi jamono rek waa xëy na moom jox nañu leen maa dina laa ci kaafeer maa fi laaj nag rek ñoom balaa woon nag tuum biir bu dee aji digg yàlla jox na leen ci xéewal loo xam ne natt bu rëy la woon de fajal leen géej ga jox leen manoor salwaa ak ya dayoon inna hawlaay naka ñu makka ñu lee la yaqulun danañu wax naan ñu yéen yéen moom de illaa mawtatuna ndara dee sunu luulaa ga de aji jëkk ñëw naa ci waa makka nag ñoom ñu ngi wedd yàlla ci seen loolu yonent bi alquran di wax ne dekk xamut mais ku dee rek da ngay wéele waaye dekk mooy dekk mooy dee dekk mooy nekkoon nañ ci loxo man yu yàlla dekkal ñu ñu ñu delloo rek mais mooy dekk waaye gannaaw buñ dee wa maanaam déet ñun bu mu fekk ñu ñu dekkal gannaaw dee rek gannaaw buñ dee ba kuno ah déedéet dekkee loolu moom bu dëgg rek baat woon ci leen jaam ay naa ci baat sunu in kuntum dem nekk yan faara ci leen di way dëggal su fekkee ni dekk am na suñ bàyyi deewoon bu yàgg nañ dekk ñu gis dekk bu dëgg dund gi ñu dund ci àdduna rek ku dee bàyyi ci sa doom rek loolu mooy dekk buur nag aw ñoom xayru ñoo gën am xaw mu tubayan am ci tuba moo ñoom ñoo gën am ci tubayan ñoo leen gën tuba moom ñu ne ab yonent la woon ñu ne waa ji yiw la mooy buur ab yaman la woon gëmoon na yonent bi te fekkewul jamono dëkkoon na Medina ngir jàng na ci téere yi jëkk yi ñëw yonent yonent bi di ci yonent yi te mooy soxla yonent yi Medina rek dadaa ñëw taxoon na mu mu def gërëm ca Medina di ñëw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu dee yeena ba teg ñu ne déméra yonent soog a ñëw lettre ba mu bari woon ay sotam di ko doonante ba yonent war gàddaay ñëw Medina lañ ko ko jox mu jàng ko rek waaw yërëm ñaanoo fee yërmaande yàlla de wala si la ñaan ñun xam yu mooy nekk lañ ci jëkk de xaaral naa moom xaaral man leen de innahum naka ñoom kaanu ñàkk nañu mu jëriñ na di way wedd yàlla de wa maa xalaqnaa juróom samaawaati asmaan juróom yaar wala laa suñu juróom yaar wa maa baynahumaa nekk diggante seen laay dina lim di way force rek yàlla bindul asamaan si rek ak suuf si rek ngir force daf leen a bind ndax ñu xam ci fettanal kattanam xam ne ci bind bii kenn na tawreet na sa kooku rek mooy rek ñu di ko jaamu rek maa xalam naa ma bindul leen illaa bi laa la ci dëgg man yàlla maa leen bind te bindewu ma leen mooy dëgg rek maanaam dëggu naa ci bind gi ma leen bind mooy ñu fettale sama kattan ak sama wéete wala ci noonu fi nekk parce que ren de bëri seen laa yàlla mën a xamuñu loolu rek dina yow man fas yi nekkat bi sax fasale di gën gën bindee fii ñii xaatum mooy ñii xasee ne ñii xam mooy waxtu wa nga xam ne ci lay daje ñoom bés bi nga xam ne ci la yàlla seen teg jaam yi mooy mooy bés bu nga xam ne mooy yowmul fas yi rek aj may nan di mu ñu mboole yow ma laa yox nii bés ba jëriñ ci mawlan jege ñaare an mawlan ci jege ñaare wala mawlan xarit an mawlan ci xarit mawlan mbayal la an mawlan ci mbayal la am mawlan dara bay am mawlan ci doomu bay am mawlan doomu bay sax ah yooyu yëpp mawlan dana ko firi seen leer wala am ngeen ñoom ñu solo de ci kala ngeen bonde keroog kenn fa mawlan la fa jëriñ de ila ma rahima dara kay yërëm na ko laaw yàlla ne te mooy ñu gëm yàlla inna rabbaka moom boo huwa moom alhasibu moom yaa ñu mat ci yoram arrahim moom de ay yërëm may gëm ñële inna sajarata saqoom inna sajarata saqoom nga te mooy garab bi gën a ban ci garab yi safara saqoom garab bu weex la waa ngi jëg yu ban fa amu la fi mooy ñamu bakkaar atam la fi abi jaale abo jaar ibnu hisaam moom la yàlla yi bugale garabam saqoom moom lay lekk ca safara rek bu ko saxee mu gutti xalafal yi ci de kër muul yi nag ndef ndefooral fekk ñam woo xam ne dafa doori ñaaw ba mel ni diidi ngoogu ñu taal ci lamp ba waaw mu jëntal ba ndef ndefoor la ñu kub noonu lay mel ci bon sax lii dana mu wañax seen jikkoon yi ca biiree su ko saxee diitam bay wañax ngir tàngaayo saxal ilham yi naka wañax ak ndox mu dee aji yigre naka ka leer gu bax ndox may wañax noonu la seen jigéen wañax dara ngir tàngaayo ñam mu bon woowu rek kusu jàppaleen ko moom Abu Jahl muy saaf faatulu jiri leen ko ila sawaay jahim ba jëpp di jahim de yàlla na jàppaleen maa di jaar dana ko dooru juróom ñaar fukk ak junne ji malaayika koy jëkkante ku ne daal kala la bu guddee juróom ñaar fukk ak junne ji xas xasab ñu daan di ko jàppale yaa war doo ko ñoom malaayika yooyu mu ne watal leen ma ko nag ba ca digg safara moom amoo jaar su ma sumboo topp sotti leen faw xalaat yi ca kaw boppam ba dina saabil habibi waaw ci mbugalam loxam jigg ma de fànq leen ci loxam safara bi nga xam ne moo gën a tàng sax safara bi fànq leen fàttali ma ci boppam Abu Jahl ibn Hishaam ñu def ko loolu nag yàlla am tanaa ko fukki mosal mosal loolu nag dina kanaka yow anta yow alaasiisu yaa ji tedd alkarimu yaa ji tedd de moo laa def yonante waa de muy si kër yi ko naan maa bay na laa ba tey ah soo mel nii diggante aadama ba nii ca Makka doom bi te dañu mën ci dugub bi de yàlla ne ko mosal safara soosu nag mosal tàngaay boobu nag yow mu tedd bi. inna sax na que ni maa ko du mooy tey la ñu nekkoon donc loolu doon ci kër yi ci moom rek loolu yële nañ seen waare waaye itam mu tàttali naka way ragal yàlla fi mu xaaral way nekk dañ ciy jot a am yu way loolu bugal de amma ko ragal yàlla na yàlla nañ ci yàlla boole. yàlla naa leen yóbbu ci jotaay yoo xam ne am nañ ko leen dugal du saa si janaasin way nak lañ ciy doore waxoon na leen ak ci seel de yàlla ba sonal danañu wax doon mu tundu sin ari rek du tal wa xare yu yaw way sabraq na xare yu tal de dañuy jiidoo jiidoo ari rek joo xam ne ci nooy la waaw mooy seen jiri sin ji laay ñu teg ci ari rek yoo xam ne ci toll nag mooy jëte ko ba xaabi dinañ di jiidoo yi jiidoo de te dañuy jiidoo kenn ci sabaqal maam te saa li ko digg na ko noonu la de te xawaj naa kon donc loolu lañ doon doon doon ñu doon dëgg yàlla wutal leen jabar yoo xam ne jigéen ñu rafet ñu rëy ay bët de mooy ngeen woo ngeen ñële yàlla na danañu woo fi àgg àjjana di pëli saa kër ñu ci des koyte am ñu ne ñu doon wóor de koyte fu seen kan dañ rek mu daal di teew seen kanam daa yëg ko woon mos ci fi àgg àjjana al ma fa dee te àjjana moom kenn dootu fa dee nelaw sax kenn du fa nelaw teewu rek. ilal mawqata dara deegal wala dara jëkk de deegal deewoon ci àdduna rek moom foofu la ñu mos a dee waaye nag lu fi de dee fa faaw rek wax yow musal na leen yàlla asaaba jëyum mugalam jëyum fasan bi ñu gëneel dina am di ko tudd borom la de zalika loolu moom moom ak foofu moom it xaaral fi mu gën a aji màgg. xëy na maa ngi sar naa naka jàppandal nañ ko moom alquran jële bilisaani ka ci lamiñ sa laalawum ndaxte de ñoom yatasakkaroon nañu waadu de alquran yàlla yombal na ko ci lamiñ yonent mu di ko jàng ñi dégg di ko bindal ba mu leer leer ndax ñoom ñëpp ñu mën a waadu ko gëm par saqi ñu ngeen di kula xala ko seer innahum naka ñoom bu saq mën a ngeen di kula ñoom xala ko sare kuré sa ñu naan ñu Muhammad la ñu maara ko naka way ta xala ko xol rek waa mu ci waara yéen ñu ngeen di ko seen xala ko rek